naxalu nasrullahi fil xalqi baabul maftuux li kulli man yuriju wuruju ila alxadratil qudsi mawlana cheikh ibrahim ñas ibnu alaaji xabla al kawlaxi attijaani gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaan ngër ma ne bu wàcc ci ñaari xalifaay mawlana cheikh ahmed attijaani sharif radiallahu taala anhu ak mawlana cheikh ibrahima ñas radiallahu taala anhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp di jiital ci nuyu boobu Mawlaay Xalifa Cheikh Ahmed Tidiane di ko ñaan yàlla fan wu gudd ak wér yaram yàlla saafara ko yàlla si ko njaboot gi di nuyu imaamul akbar imaam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé di nuyu naatiqu rasmi Cheikh Mouhamed El Mahi Ali Cissé di massawu rek ci xew-xew bi nga xam ne ni xew na fi tey àddina noonu la dund ak dee ñooy li nga xamante ni ñoom ñoo ànd ndax xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla sax mooy bind dee la njëkk bi na teg ci dund ngir lan mu ne mu xool suñu diggante ana kan mooy ki nga xam ne moo ci gën a rafet jëf kon mënta ñàkk ndax kullu nafsin saa'iqatul mawt bakkan bu ñam dund la dana ñam dee waaye tamit ñu ngi tas ji di tamit am kalima yoo xam ne kalima laaxe biir la di ko laay biir ñi nga xamante ni mooy ñi nga xam ne sëfoor yi nga xam ne ñooy daw ci yoon yi di leen na ne leen nañu def di nañ di daw ndànk di def ndànk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne ataani min allah wal ajalatu min alcheytaan maanaam def ndànk loolu yëfi borom bi tabaraka wa taala la waaye ama def lu baax def boo def boo xam ne def bu baax la loolu yëfi cheytaan la mu yàkkamti doomu aadama bi heure bu yàkkamtee rek seytaan da ci dugal loxoom te seytaan bu ci dugalee loxoom rek lu rafet du fa am da ngay gis ne tey li xew seytaan mooy li nga xamante ni moo ci dugal loxoom loolu yëpp yàkkamti mooy li nga xamante ni moom moom moom lañ ci jiital ndax nit ki fépp fooy dem rek jàppal tegul ci tali bi waaye àndal ak sa conscience àndal ak sa sa dal gu mat sëkk àndal ak sa tey gu mat sëkk da nga yegg fa nga jëm ci jàmm ak salaam kazalika itamit su fekkee ne dañuy nekk ci di lawal oto ñuy fexe di moytu téléphone yi nga xam ne dañ koy yore ñu fexe di moytu itamit yeneen yoo xam ne dañ ci dugg ba dalan ba nga xam ne dañ concentre bu ñu war a concentré duñ ko def yonent yàlla noox keroog bi nga xam ne yàlla yett na yàlla yettloo na ko gaal mu dugal ci ay nit yàlla daf ko ne ko balaay gaal gi la départ na nga wax ñaan gi bisimilah mujjiri wa mursaha inna rabbi la xafaru rahim bépp wa bépp loo xamante ni day dem nga dugg ci wax ko inchaa allahu taala dana yegg si jàmm ak salaam benn asidaadu ci am wala nga ne subhaanallazi saqalanaa haada wa ma kunna lahu min almuqrinin képp koo xam ne yaa ngi dugg ci dara boo ko waxee yàlla dana la musal affaire bi dina yegg si jàmm ak salaam ba nga xamante ni benn mis misuke lu ci am doomu aadama su xëyee bala ngay génn sa kër fexeel nga musu di seytaane boo duggee sa oto bala muy daw fexeel nga musu di seytaane nga jàng ñaan yi boo ko jàng yàlla mën na la yóbbu si jàmm ak salaam ñu waxaat rek nañ di fexe di def ndànk nañ fexe di ànd ak suñu conscience suñ xel mu dal buñ di yàkkamti dara ndax yàkkamti yëfu seytaan la waaye def ndànk yëfu yàlla la ñu ngi jaalewaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoom la ñoo ci génn àddina di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla jéggal yal yàlla xare leen àjjana yàlla dee nekk seen i noflaay lépp lu baax loo xam ne def nañ ko yàlla yàlla na leen ko yàlla fulandil mu nekk mbir yoo xamante ni mbir yu kawe lañ yàlla dimbale leen yàlla dëkkale leen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika alallahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu